doomu jàngoro buy sabab feebaru dënn ni ñu koy ràññee mooy dangay sëkkat sa yaram di tàng ngir moytu ko dangay raxas say loxo te moytandiku di laa saxal ni jàngoro bi lawee feebar bi dina law aw ci doomu jàngoro wàllante bi day nekk ci kaw ñuy saafante ak feebar bi dugg ni ñu koy ràññee mooy dangay sëkkat sa yaram di tàng sëkkat di siyoli say bakkan di sotti walla tiflit yi génn sa gémmiñ di tasaaroo koy nooy fàggandiku bi ni ñu mën a def ngir mucc ci feebaru coronavirus su fekkee ni saa su ne dañuy raxas suñuy loxo ak ndox ak saabu wala boog ñuy jëfandikoo liquide bi ñuy wax hydroalcoolique jël musuwaar tàkk suñu gémmiñ bu ñuy sëkkat mbaa ñuy tisoori wala ñu tënk suñu loxo sëkkat ci biir moytu saafonte yi ba sa diggante ak keneen ki lu mu bon bon doon meetar lu ñu war a def bu màndargay feebar bi feeñee bu sa yaram tàngee sa si wow sa nooyi jafe bul jàndaxe bul génn sa kër sa bopp fexe ba loo saafonteeg sa waa gën a bàyyi xel ci xale yi ak mag te woote si numéro yi 800 00 cinquante cinquante wala SAMU quinze quinze te doo fay dara. Croix-Rouge bu si ndimbalal 3 Studio ñoo leen sant di leen